jërëjëf Limaamu Laay yow mi nu xalal yow lislaam xamal nu laaw bi saba Allah woo jotal sa woo teru yépp ngay wax naan lu fiiru dina ñëw see asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu laay laay laay Mamadou laay Maxtaar laay Saalihu laay Jabel Masaleere euh, maa ngi nuyu képp ku nga xamante ne ab jullit nga di nuyu ñi nga xamante ne ñooy suñu bokki taalibe yi yàlla def ñuy ñi bokkal kuréel bi ñuy waa Laayeen ñuy siyaar ñëpp di màggal ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay Euh, li ñuy waxtaane tey nag dañu ko sàkku si ñun ñaan ñu ko ngir ñu def si waxtaan muy Baye Seydi Thiaw euh, li ñuy waxtaane nag muy dañu tàmbalee sa waxtaan wa muy ba bàyyi lay alayhi salaatu wasalaam nekk gore loolu Baye Balla moo ma ko wax ba mu nekkee gore ba yàlla def gore googu mu def fa ñetti weer yi mu def gore euh, ki ñuy wax Baye Sam maam Samba Siis ma nga xamante ne mooy maamu Baye Seydi Thiaw boobu da daan jóge Tëngéej di tëmbal gaalam di ñëw di seet ci sang bu tedd bi alayhi salaam fële sa gore di ko siyaar di ko saam ah, ba yàlla tax nag ba loolu moo taxoon toujours da daan ñëw di seet ci sang bu tedd bi kooku nag si jëm boppam ba yàlla dogalee mu ñëw foofu ñu koy wax euh, maam Samba Siis dafa ñëw di siyaar sang bi di fa ñëw di siyaar sang ba am benn bés mu ñëw waaye bi mu ñëwee sang bi gis ne na daal koroog maam Samba nekkul en forme bàyyi laay na ko daal <coughs> waaw Samba Siis waa tey de tey tey moom sa kanam dafa ñëkk maanaam kanam gi daal dafa triste mu ne waaw lan moo nekk saw tiis sàmba Ciss naka daal man suma soxna dafa toll si weeram dafa ëmb daal ba xamante ne daal mën nañoo wax ne tey la wala suba wala gannaaw suba mën na see am doom waaw te saa yi bu tolloo fii rek doom ju ma am doom jooj day dellu loolu daal moo nekk sumam xel nekk suma tiis sanga bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Limaamu ne ko Samba siis mu mu ne sa soxna day doom ji muy am nii Ramatulaay siis lay tudd dina am doom ju tudd Ramatulaay Siis muy Ramatulaay Siis mu nekk kasa toog kasay toppam mu tudd Astulaay Siis mu naa mu nekk Astulaay Siis moomu nag mooy jur suma xalifa ba kon Baye Balla xamoon ñu ne Baye Laay alayhi salaam ba muy tudd xalifa Baye Seydi Thiaw mu ngi ko tudd sa gore sa biir ñetti weer yi nga xamante ne moom la am sa gore sa la tudd xalifa Baye Seydi Thiaw Baye Balla moom a jàngal loolu beneen ba sa topp mooy ci ban at ban année la Baye Seydou Thiaw gane àddina mooy at mi nga xamante ne mooy 1914 ba nga xamante ne si la ñu sancaat dëkk yëpp ngir peste baa waraloon dëkk yu taxu mu nekk feebar bu nga xamante ne lëmb na àddina lëjal àddina ba àddina lëj ba àddina lëmbe ba feebar boobu di jeex nag muy 1914 ñuy sancaat dëkk yooyu si la Baye di Thiaw gane àddina muy 1914 kon Baye Seydi Thiaw mu ngi gane àddina si jamono ju nga xamante ne jamono jooju feebar ba commencé naa wér yàlla wéral na feebar ba jëlee nekk ci àddina bi ba nga xamante ne àddina bi delloo siwaat na si ak dal kon si at moomu la juddu muy 1914 kon muy at mu nga xamante ne sa la yàlla dindale njax si la yàlla dindi njaxare si àddina bi yëpp ba ku nekk àndaata sa sago àndaata sa dal sa at moomu la bàyyi Seydou Thiaw gane àddina muy 1914 kon at na mu nga xamante ne àddina bi kenn du ko fàtte muy se la ñu sancaat dëkk yëpp kon ab sancaat moo fi am kon yu du bi dina taw an wari saaraati day dikkaat foofu yeesalaat se la ñu yeesalaat dëkkuwaay ya sala ba ñuy yeesala dëkkuwaay ya sala bàyyi Seydou Thiaw gane àddina moo waral ba mu ñëwee sala yeesalaat diine si ba naa Seydina Mandione génne àddina mu jëlaat diine ji yeesalaat tegaat ko deforaat ko ba na nga xamante ne maamam ya bàyyi woon nañ ko ak baayam ya mu tegaat ko diine ji di soog a dem uuf ay rakkam toppoon ay baayam kon Seydou Thiaw a ngoog beneen ba sa topp <coughs> mooy bàyyi seedi coow ba muy jël yoon wi nga xamante ne mooy yoonu laayeen da jël si jamono ju nga xamante ne jamono jooju jamono ju métti woon la si laayeen ngir sëy naa ma njoon dafa tooge ak mag ba bi muy génne àddina fekkoon ñëpp ne kenn kuy mën a uutatu ma njoon do am comme niñ ko waxoon ci maam Seydi comme ni ñu ko waxoon si Seydina si jooju jamono nag la bàyyi di caw jële xilaafa gi jële ko sa baayam nag roowalaay Isaa jële woon sa baayam mu jëlaat xilaafa gi noonu taxawalaat ko muy taxawal gu nga xamante ne ba mu ko ñëpp gis nañu ne ah ñëpp nee nañu Seydi Thiaw kat mat na sang ndaxte la nga xamante ne moom la baayam yoroon ay maamam yoroon ko lañ ci bàyyi woon defaraat na ko téyewaat ko nañ ko téye woon ba tey ji diine ji sooxewul kon loolu benn la si liggéey bay Seydi Thiaw kan mooy Seydi caw Seydi Thiaw nag ñëw na fekk diine ji toll woon nga xamante ne bàyyam dafa mage ay rakkam yi nga xamante ne ñoo toppoon si ginnaawam yàlla def ñu jiitu moom bàyyam commencé kaa tàggat ci nan la ñuy a xilaafa jiital ko mu jiite ji it dem jiite it dellusiwaat te booba booba bàyyi moo ko préparé pour mu dem jiite ji it bàyyi bàlla xamal na ma ne bàyyi seedu ca moo ko wax si gémmiñ ak boppam naka sama bàyyi moo ma jàngal kon Seydou caw nit ñi xamee ñu ko woon dem ci daara di jàng wala jàng feneen ak nangam Seydou Thiaw nag nee na bàyyi moo ko jàngalal boppam bàyyam maam Mandione moo jàngal Baye Seydou caw loola la Baye Seydou caw wax Baye Balla ñu ne kan mooy Seydou caw Seydou Thiaw mooy ku nga xamante ne yàlla dogaloon na si moom mu ilif jinne yi ni ko yàlla mayoon mu notte ko mbindeef yëpp ba ay waxam kenn du ko dindi lu mu wax ñëpp na gongo noonu la ko yàlla may woon sañ-sañ boobu ak kàddu googu ci jinne yi yàlla may ko ay jinne yi jébbalu si moom ci xalaapaam nekk ay taalibeem mën nañ ci génne rek benn jinne muy maam njare mi nga xamante ne mooy rabu yoof te bàyyi Seydi Sow la jébbalu si la jël werd bàyyi bàll wax na ma ko nee na koroog jooju nga xamante ne maam njare mu ngi jël ci werd ba mu ñëwee ba dem te la leen bàyyi Seydou wax ndax xam ngeen kooku ki fi ñëwoon ñu ne ko déedéet mën nañ njëriñ la da doon jël si weer la kon yàlla notaloon na ko nit ñi notaloon na ko jinne yi yàlla defit ba mu toogee ci xelaaf ak maamam yor diine ji ci ab sañ-sañ ak fulla la nga xamante ne kenn daaw ko def ci jamonoy maamam nangul kenn ko ko def ci jamonoom la maamam yax bàyyam daan daan tere daka daan tere lañ daan digle mu koy digle mosula nangu mukk benn yoon diine ji ñu siy doxal lu nga xamante ne méngoowul loola kon noonu la sàmmee diine ji ba 1981 mu jot ndigal ci maamam maamam na ko na nga taxawal li ñuy wax sama oote bi ma oote woon na ko taxawal màggal ko célébrer ko ba àddina bépp xam ko booba jamono ziar lañ daan def ziar daayira yi ñëw def seeni ziar ci jamonoy Seydina Issa jamonoy Seydina Mandione bu ñu defee seeni ziar surtout nag jamono Seydina Mandione comme Seydina Mandione créé daayira yi buñ ñëwee def seen i ziara yooyu yëpp ba pare daal di joxe seeni i addi yi ñuy joxe as yoon daal di delluwaat léegi mu am ba si jamonoy Baye Seydi Sow ba 1981 sa la jot ndigal ñu ne ko boobu nañ ko ëlbati ñu def ko lu nga xamante ne day taxaw ñu oot tudde ko oota ba muy appel mooy oote ba apel boo ko déggee mooy oote ba bàyyi lay oote woon moom la ñuy yeesalaat at mu jot ñu taxawalaat oote bi mu mel ni at moomu sa lañ ko oote waat addina bépp ñëw seede na bàyyi lay oote na kon loolu mooy appelu Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wasalaam mu ngi ko taxawal booba fekk na oote bi appel bi am téeméeri at mu taxawal ko ba nga xamante ne taxawal na appel boobu muy 1981 ba sa 1982 salaka maamam joxaat ndigal naka demal nga seeti yi mboolem képp ku fi toogal diine ne maamam la toogal sa tarixa ba mu toog nekk xalifa ba na nga dem jàmmaat loox moom jàkkaar loox moom xamal ka ne ko sama maam ma yónni si yow nee na moom mooy jëmb mooy tey mooy Muhammadu Rasulullah mooy waxoon dem sa arab yi moo dellu si waat fii ñuul di limaam Mahdi ndax gëm nga ne moom la wala déet defab délégation defab def benn calendrier bu xamante ne kër diine gu nekk di nga xam ne bés bii la bàyyi seedi coow di ñëw si yow mu daal def na boobu dem seeti ku si nekk mu ñëw si yow xamal ne yàlla yoon sa maam mooy muhammadul maamullahi mahdiyu mooy rasulullahi moo yoxoon démb moo ñëw tey nga nangul ko ko fu mu dem rek du fa fanaan fu mu mën a dem balaa guddi mu fanaan ci kees boo ëllëgee mu jogaat demaat feneen noonu la ko doon def ba loola mat mu jubal kees ba muy ñibbisee korog Yoff la jubal ñu teeru ko teeru bu ba ñu ko teeru bañ ko teeroo korog ba mu ëssee ndeysaan di dugg see tom tàmbale sa tali bu mag ba muy kër looto buntu kër looto ñu lal fa sëri muy dox di ñëw ñu commencé sikar Seydina Isa laa imaadu yooyu sama am sanga bi ñoo ngi lay siyaar laa ilaaha illallaah maa ngi fa woon bañ koy sikar ba nga xamante ne sang bi jox na doxam ju sell ju rafet jooju ba ëtsi si tànt bi kook la wax ne bis bi ko ko teewee yàlla jéggal na la say bàkkaar waaw waaw kon mu nekk bis bu rëy si diine ji kon moo fi jëkk taxawal li nga xamante ne tey jii mooy appel bi te amul beneen appel bu xamante ne am na si àddina lu dul appel ab laayeen ngir waa laayeen rek la seen maam oote woon mu Seydina Limaam Mahdi alayhi salaam amul kenn ku fu oote woon ku dul moom mu woote boobu nag ñu koy célébrer chaque année di màggal woote boobu mu nekk woote bu nga xamante ne yàlla saxal na ko képp ku nga xamante ne mas naa taxawal oote si limaamu Mahdi yàlla na saxal na si oote ba mu des woote limaamu lay Mahdi alayhi salaatu wasalaam bii du doomi alsana kumandooy fii si saw bu jant kon sanga bu tedd boobu màggal na looyu ka yàlla yónni woon tamaamam jaarale ko si moom moom mu jotal ko matale ko te digganteem ak kër diine yi matala woon na ko waaye ku mu si mas a jàkkaarloo day ne sama maam mooy Rasulullah ànd ak rakkam yu tedde Seydina maam Alsaan Laay mi nga xamante ne ak ñaanam li ñu génn nii bi passé mu nekkoon ku nga xamante ne jàngale na ak toppe nan la ak nan la ñuy toppe ndaxte mu ngi ko jànge woon ci bàyyam bu tedd ba mu Seydina Mandione na mu toppe woon magam jorowolaay Isa topp ko ñeent fukki at waaw moom it maam raan toppe na magam bàyyi Seydi Thiaw fukki at ak juróom benn mosula yoxat mosula tàyyi naka mu defoon nekkoon ku nga xamante ne dafa taxaw ne Seydi caw du sama mag sama baay la ab taalibeem la laxasaayu takk ndiggaam topp Seydi Thiaw amul benn jamono ju nga xamante ne mos ngaa dégg rek ñu ne raan ruspet na wala wa dina diggal Seydi caw wala Seydi caw sant na ko mu ne du mu dee wala digal na ko mu ne du def wala sant na ko mu ne du def wala tere na ko mu ne ko du ko bàyyi mosul am moo tax gis nga na Seydi daan toppee woon magam ju tedd ja muy Baye Seydi Thiaw Baye Seydi Thiaw nag yàlla dogal na bàyyam la topp sëy naa ma njoon tarbiyu ko ba sëy naa ma njoon jox ko xilaafa bi moom it maam ran tarbiyu ko ba mu jox maam raan xilaafa gi maam raan sëriñ Ablaye tarbiyu ko ba mu jox ko xilaafa gi sëriñ Ablaye nag yàlla dafa dogal mu tarbiyu ay baayam maam Seydi tarbiyu Baye Babacar lay mu gërëm ka ñaanoo ko mu tarbiyu Seyna Mandione mu gërëm ko ñaanoo ko mu tarbiyu Seydi Thiaw mu gërëm ko ñaanoo ko mu tarbiyu Seydina maam Alsaan Laay mu gërëm ko ñaanoo ko ba tey ji mu toog ci xilaaf ak maamam te liggéeyal na maamam siiwal wooteem ba penkox sawu ba ñëpp xamee wooteeb Seydina naa ci Cherif Abdoulaye Thiaw kon kookoy Seydi Thiaw Seydi Thiaw nag organisation appel bi nga xamante ne organisé na koy jiital rakkam yu tedd ja Serigne Ablaye mooy wax na maam ja daan waxee woote ba ax na mu ko daan wootee ba tey jii ku tolli foofu rek di nga defee ne Serigne Ablaye daan def mennam Serigne Ablaye la moo daan def tey jii lañu ñu séddale ñetti rakkam yi benn bi maam ji nekk Mamadou Lamine moo koy def mooy ubbi ca Cambérène ga a ah, benn bi Mamadou Lamine mooy def ubbi ca Cambérène ga a ah, ba nga xamante ne moo sa topp muy ngor ga ka nga xamante ne mooy maam jin moo koy def Euh, li nga xamante ne mooy yor-yor bi ki nga xamante ne mooy Mamadou Makhtar moo koy def te yooyu yëpp nag sëñ Ablaye ka daan def waaye fépp fu mu mos a daje bu ñuy sante ak ñaan ubbik ñaan ak tëj ñaan bay bàyyi raane ka daan def sëriñ daan nag ñëpp xam ne ak mayam ngir xabru yi nga xamante ne mooy xabru Seydina Limaam moo ko tabax moo ko yeesalaat moo tabax Cambérène moo tabax Yoff moo tabax xabru ma Mandione moo tabax fii nga xamante ne mooy dëkkuwaay yi muy palais yi nga xamante ne tey jii ca la ñuy toog xalifa di si toog mooy yeesal yooyu yëpp moo ko defal ba mu baax te toppoon magam yi nag mu toppinu rafet bu nga xamante ne tey jii bépp ahlu bayti rasul war nañoo roy si topp yaay yi nga xamante ne seeni bàyyi toppoon nañ ko seeni mag topp ko seeni baay yaakaar naa ne ak toppe moom kenn waru lañ kaa jàngal ngir sëy naa ma njoon na mu toppe woon maam Seydi topp ko fukki at yu mag mu jóge fi bàyyi Seydi Sow toog maam raan topp ko fukki at ak juróom benn te yoxatul kon war nañu xam ne ak toppe moom kenn waru ko jàngal ak lu béytu rasul muy sëy naa limaam Mahdi alayhi salaatu wasalaam maam raan ñëpp xam ngi ne Serigne Ablaye toppoon nag ko 14 ans Serigne Ablaye nag topp ga mu topp moom topp na maam joon topp maam topp Baye Seydi Sow topp Serigne Seydina maam Alsaan Laay ba yàlla tey ji defal ko gis nga xilaafaam gi mu nekk ak noppale ko su moom ay rakkam di ko doxal ak i doomam kon Seydi Sow ngoog Baye Seydi Sow nag nekkoon ku nga xamante ne ku mate li mu doon la nekk ku am fulla ku am fayda nanguwul diine ji kenn ku ci manquel dara wala ku ci xamante ne yokk na ci dara lépp lu ñu daan def muy jàng woy wala ngay taalif dana laa demal ci sëriñ Ablaay bu sëriñ Ablaay d'accord si taalif bi nga taalif ñu mu génne bu ci d'accord du génne bu dee woy bu dee si kar nga génne dangay ngay dem ci sëriñ Ablaay sëriñ Ablaay xool ndax loolu nga génne ndax jaar na yoon wala kon ci jamonoom contrôle bi ñu daan def si diine ji muy si taalif yeex mbind meex yooyu yëpp dañ ko daan dañ dañ daan yebal ña ko daan def si sëñ Ablaye mu xool kon loola si jëm boppam nga xam ne diine ji organisé woon na ko organisation bu nga xamante ne ku si nekk joxoon nañu la sob cër kon na nga xamante ne diine ji nañ yàlla def mu jël ay boroom xam-xam ñoo xamante ne doonte sax bokkuñu si ahlu bayti bi mais am nañu xam-xam ci administration mu jiital ñu géré woon loolu yëpp di ko doxal bu dee ci wàll kayit ñoom ñooy lijjanti kayit ñooy ñooy saytu kayit xool ba xam ndax kayit gi niñ ko niñ li ñu li ñu bind xalifa bi ndax mbind xalifa bi mu war na ko jëfee wala war ko jëfe wala bu koy jëfe nan la koy jëfe yooyu yëpp mu nekkoon lu xamante ne dañ ko wàcce woon ci moom mu jël ay borom xam-xam seet ko seeni loxo moo mayee Parcelles Assainies waaw ñëpp xam nañ ko 364 hectares mu maye ko bu nga xamante ne soxla si dara waaye la taxoon nit mu maye ko tey jii ñëpp gis nañ ko maamam moo waxoon ne yaatal leen sàq di gën yaa ngi ñëw Senghor ñëw ne dafa soxla ay suuf ngir dëkkal doxandéem yi bàyyi Seydou Thiaw jox ko suuf si mu tàllal ko daal di rëdd def fa Parcelles Assainies def unité 1 ba 26 1 ba vingt 26 day dëggal woote Seydina Limaamu muy ñaar fukki at ak juróom-benn yi Seydina Limaamu woote moom la dëggal te Senghor sentir woon sax ne euh, loola lay def ñoo ñooñu nga xamante ne ñoo dëkk Parcelles Assainies bi ñuy ñëw ñii seen i baay murid la ñoon ñii seen i baay xaadir ñii seen i baay tijaan waaye bari na si tey jii ñoo nga xamante ne ay laayeen lañu ñaata daayira laayeen ñoo nekk Parcelles Assainies appel bu ñëwee yaakaar naa ne dafay nekk ci ay nit ci Parcelles Assainies kenn xamul nu mu toll kon bàyyi seeti ci amoon na vision muy gis-gis bu sori waaw gis-gis bu sori moo waraloon mu joxe Parcelles Assainies waaye Parcelles Assainies tey jii ko am ku am yëg-yëg xam nga ne boo fa demee la fa nekk si ay taalibey laayeen kenn xamul nu mu toll kon yaateel leen saaxet yi gan yaa ngi ñëw gan yooyu dañu indiwaale coursilaires yi seeni i ndigg moo waraloon bàyyi Seydou Thiaw jox leen foofu muy Parcelles Assainies kon ñu ngi yamani foofu ndaxte luy duuf si nag yi xaju si cin li allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam ñi réer man dangay jël fii ta di wax baat baat may lay sa baat sax na tey ndax gaay man bañ si karte si misët ñooy ña koy woote ka booloo di kañ jigéen ñaa ñi ànd ñi di xañ islam te